gannaaw nag ay passage yoo xamante ni yu bëri def na ko ci enquêteurs yi Lamine Diack nag bëggul woon àddu ci mbir mi ndax li ñu mel nar a dàbbali waate ci mercredi ji lu ci mënti am tey jii ñu bëri gëm nañu ni que ni dinañ ko libéré Lamine Diack nag nekkul sénégalais bi nga xamante ni moom rek la ñu impliqué lu jëm ci coowlu corruption ci fonds de dopage kii di doomam ñu koy woowee Massata Diack nag moom mi ngi ci mandat d'arrêt international moom nag mu nekk Sénégal depuis éclatement affaire bi ndaxte suñu réew joxuñu si suite favorable gannaaw demande d'extraction bi waa France defoon Habib Cissé it daal dinañ koy tudd ci mbir mi le moom di ancien conseiller juridique ci jàkk ba mu nekkee I2AF moom tamit inculpé woon nañ ko ci jamono jooju moom ak ex patron moom nag yàggul dara doonoon nañ ko placé en détention waaye après ñu bàyyi ko ci fàttali ñaareelu chambre d'instruction bu cour d'appel bu Paris nag dafa décidé woon kii di Lamine dafa waroon fay lu toll ci millions mu nekk ab li nga xamante tënku ci affaire dopage bi nga xamante ne lëmbee na athlétisme bi ñu daal di tere mu génn fi nga xamante ne moom mooy France avocat yi nag ñaanoon nañ ngir ñu wàññi li somb takku bi ni mel ba ci lu toolu 91 millions muy ab som boo xamante ni kii di Lamine Diack na ko ngir mu mën a des ci li nga xamante ni moom mooy contrôle judiciaire correctionnel waaye avocat généralu cour bi madame Foussina nag moom li mu xamle rek mooy que ni di ko dégg loolu ci noppam ndaxte moom gëm na ne ni que bi xamante ni moom mooy li nga koy jiiñ waaye it daal day compenser li nga xamante ni moom mooy xaaju million d'euros yi nga xamante ni teg nañ ko ci ndoddam président Lamine Diack boobu dafa tax ñu euh, dalal sunu gan Bakar Ba Bakar ñu ngi lay la ziar. waaw maa ngi lay fay Tunkara di nuyu chroniqueurs yi. di am mbégte nag Tunkara euh, bokk plateau bi Cheikh Yérim. parce Cheikh Yérim dafa bokk si ñoo xam ni ñun bi ñu nekk ndaw nekk université di jàng bokk na si ñu influencé ba ñu activer wu ci société civile. donc je pense que tey plaisir le grand donc euh, ñu partagé partagé plateau bi donc mooy nuyu téléspectateurs yi nga xam tey euh, ñoo ngi seetaan présentement. Euh, Bakar yow sa xam-xam dafa màcc si wàllum yoon léegi président la Lamine Diack tey situation bi ban jàngat nga si def. waaw d'abord jàngat bi ñu ciy njëkk a def mooy que ni ñun en fait dañu jàpp que ni dañu njort que ni Cheikh Yérim euh, waaw lii mooy wane que dama am cofeel ci moom <laughs> voilà lii mooy wane que ni effectivement dama am cofeel donc euh, président Lamine Diack ñun on a l'impression que ni euh, réewam daf ko daf ko daf ko abandonné ñun loolu lañ jàpp. pourquoi parce que xam nga bi mbir mi amee ba léegi. man je me dis que ni ñun amoon nañ lu ñuy wax une compétence première parce que euh, président Lamine Diack c'est un Sénégalais te defe naa ni kenn umpalewul que ni ñun am nañ benn coopération coopération judiciaire boo xam ni euh, dafa am diggante Sénégal ak euh, ak France donc munoon nañ transférer dossier bi indi ko fii ñu ñu àtte ko. Hmm. loolu duñ ko nangu baax non en fait c'est parce que mooy li ma wax c'est parce que tey ñun jàpp nañ que ni état du Sénégal bu fekkonte ni protection consulaire ak diplomatique bi nga xam ni tey. Euh, président Lamine Diack droit la ci moom état du Sénégal joxoon na ko kon ñun jàppoon nañ que ni mbir mi féete woon na. boo eh, Babacar nag doo mënoo fàtte nag ni que affaire bi rapport de force la. wax mooy dëgg. Hmm. France même ñiy jaay cocaïne. seen affaire boobu air cocaïne. air cocaïne ki la ñu lañ doon jaay. waaw mais dañ dem exfiltré leen yóbbu leen France. waaw lenn rek moo tax Lamine Diack ñu gàdde ko France. c'est qu'on est des pays pauvres. Ah, euh, mais loolu laa wax doole tey. Euh, wala boog ñu taxawee ni ñu waroon taxawee. mais Lamine Diack du nekk parce que effectivement il est pris en otage. waaw mais affaire rapport de force la Cheikh Yérim. waaw tey ñu France tey benn juge français bu taxawee ne non du defal ko mandat de dépôt wala di assigner ko à résidence kenn du si mën dara. déjà déjà loolu mooy li nga xam ni du yoon déjà boo xoolee ça fe plus de deux ans ñoo ngi ko fa ñoo ngi ko fa détenir te ñun on a l'impression que ni ñoom pare wuñ pour àtte ko parce que xam nga en France euh, ñoom même même en matière criminelle. le juge d'instruction il est il est calé dans un délai de deux ans deux ans normalement ñoom war nañu mën a boucler seen seen instruction donc pour man koo xam ne dañ ko topp pour des faits de de corruption kooku mhm. au moins plus de deux ans instruction bi mënoon nañ ko mënoon nañ ko boucler Khadija en fait man benn laaj laa amoon parce que gis nañ ni après am na benn collectif bu jóg euh, bu ñu woowee les amis de lamin su ma jóg mu ñu entame woon ay action bu fekkee ni peut-être euh, xam nga mbir yi fan la toll ndax avancement am na ci mbir mi yaa ngi wax itam ni peut-être euh, Sénégal et c'est le sentiment qui est d'ailleurs très partagé que dañ ko xaw a mel ni ku ko abandonné maintenant tey bu ñu doon am ay ay action yu ñuy mënee si ban plan lañ ko mën a def peut-être am résultat bu ah, bon en li ma si wax mooy du du du du du Lamine Diack rek on aussi avec Gadio cest que ñun suñu capacité d'indignation moom des fois moom la ñuy po mooy poser wu problème te capacité d'indignation boobu li ciy fekk sax askan wi di ci fekk ñi nga xamante ni ñoo ñoo yor réew mi bon tudduma président mais ñi nga xamante ni ñoo jiitu réew mi. Mhm. ñoo ñoo jiite réew mi. nga xamante ni pour man toutes les occasions sont bon pour discuter de certains dossiers. nga xamante ni loolu dafay mooy li Cheikh Yérim doon wax léegi du du ambition yëpp a matériel am na boo xamante ni c'est immatériel. te war nga ci ay symbole waaw war nga ci góorgóorlu ci symbole yooyu. mais tey euh, beneen kii bi nga xamante ni am na ci aussi mooy quelque soit loo xamante ni mën na ko def quelque soit parce que tey jii affaire Lamine Diack aussi. bu do Éric Woerth gis nga tey jii. lañ hmm. koy mettre en examen Éric Woerth. parce que ci affaire financement libyen yi. Hmm. gis nañ topp niñ ci toppeeg yooyu. Lamine Diack dañu wax ne dafa impliqué wu ci ay financement occulte ci élection présidentielle 2012. Hmm. est-ce que du implication boobu egg na foo xamante ni moom moo faussé le jeu démocratique kenn xamul. c'est-à-dire que ni ñu mënee war a mënee combat bële pour man. noonu la ñu war a mënee combat bi te tey ji noonu laay interpeller l'état du Sénégal pour que sénégalee yi nga xamante ni ñoo ngi tëdd dans des prisons yi nekk ci àdduna bi tey ñu répertorier xam nan lañ toll état du Sénégal am ci taxawaay boo xamante ni aussi taxawaay bu honorable lay doon. Astou Dione euh, bon Astou Pa Aïssatou. Euh, Lamine Diack euh, biñ koy tuumaal du woon moom kese waa papa Lamine Diack même voir maam Lamine Diack comme tu vois. Euh, biñ koy tuumal du moom rek euh, lañu ñu tuumaloon waaye ki nga xamante ne mooy doom ji Massata aussi ci la bokkoon dama bëggoon a xam Massata kaawam actuellement nan la toll ak euh, naka la fas yéene mujjee. Paco. waaw mooy li may wax rek mooy ni que déjà vu statut bi mu am moom mérité wul lii parce que quand même qu'on le veuille ou pas il a été une personnalité très influente xam nga dans le jeu démocratique sénégalais. depuis PS. xam mu nekk fi maire de Dakar donc euh, nekk président IAF je pense mm-hmm. ba pare am loo nga xam ne liggéey na ko Afrique. man parfois je me demande est-ce que les Africains sont futés parce que li ñu def nii par exemple tey tonton Lamine Diack mën nañ ko def keneen su fekkee ñoom jóguñu xar seen tànk tubéy mais président Macky Sall war na mën a wax ak Macron. parce que quand même vu son âge ak plein de trucs yu ñuy jël en considération mais le vieux ne mérite pas ça oui, mais, sincèrement mais, mais, mais Macron Macky Sall loolu exécutif la alors que lii affaire judiciaire la ouais, parce... mais je veux dire xam nga un président un président tey Macron bi mu bëggee naturaliser Gassama. ah da ko naturaliser. mais c'est différent loolu président am na si sañ-sañ. mais mais ah, président foofu France président am na sañ-sañ. si loolu mais affaire judiciaire président mënu fa mënu si dugg foofu. mais non xam nga loolu ñoo ñu gën a dëgër ay ma wax la benn affaire boo nga xam ne yi ñuy wax ni que c'est des faux problèmes. Hmm. man xam naa benn doomu président de la république bu benn dëkk sur le Saint Coran de la Mecque. daf naa ay bêtises aux États-Unis kenn tëju ko. Hmm. Pape ji dafa intervenir. il faut arrêter ça c'est-à-dire bu taxaw di wax ni que ay président non yooyu c'est des faux problèmes. kooku kooku kuy bàyyam gune googu. non du ma ko sama xarit la. Euh, imam Imaam. waaw euh, professeur euh, problème mu Serigne Lamine Diack bi jàpp naa ne daal taxawu bi ñu ci waroon am askan wi dafa des nit ñi dañuy dem ba fàtte ko. daanaka buñ ci boo ko déggee ñu wax ko balaa nga koy déggaat it yàllaa xam. Mm-hmm. te kilifa la goo xam ne am na lu mu def ci réew mi ci côté bu nekk. waxuma la dara sax mais li ma jot ci information ci nit ñi mu doon dimbalee di leen jàppale ñooñu budul dara sax war nañu amal bés boo xam ne. ñu daje sax pour ñaanal ko. Mm. pour àddina bi xam ne kii ñu jàpp kat xëy na ñoom ñoo xam li ñu koy tuumaal mais nit ku màgg la ci ñun. man jàpp naa ne daal taxawaay bi. Euh, gën war nañ ko gën a organiser. Hmm. gën ko gën ko doole def ko defandoo ko ak mbooloo daal. aywa Cheikh Yérim lan ngay mujjee ci affaire président Lamine Diack. waaw li Paco mu ko waxee moo violent mais li mu wax dëgg la Tounkara. Hmm. amul dossier bu diplomatie mënul lijjanti amul ça n'existe pas gis nga tubaab yi li ñuy gëm yi gëm seen institution gëm nañ seen international hmm. tey am na nguuru Sénégal nu mu doon taxawee ci dossier bi Macron mooy woo ministre de la justice woo procureur général wax ak ñoom. waaw loolu amul dossier bu ñu dul lijjanti ci amul amul loolu amul hmm. cest à justice bi lu mu libre am na doomu président yu bari j'en connais man yoo xam ne États-Unis France dañuy dem Bali def n'importe quoi le lendemain ñu war a instruire dossier ñu woote bàyyi la ñu dem seen yoon hmm. loolu loolu loolu man gis naa bi ma nekkee jeune Afrique gis naa ko ba taay hmm. donc amul dossier bu ñu maa nag lijjanti boobu du lu ñuy wax ci kaw lu ñuy dox ci suuf la te dama jàpp ni ba pare dama jàpp ni Lamine Diack ak ni mu toll quand même ci Sénégal et puis ñoom sax seeni dossier boobu dañ koy lijjanti mais xoolal Platini coow li de fan la mujj je veux dire parce que ñoom aussi xam nañ seeni nit ak nu ñuy def ba seeni nit. Ah, bu ñu nekkee ci tamit rapport de force yi ñoo dul benn tamit. Ah, mais rapport de force yi ak nu mu dul benn benn benn kaawu Lamine Diack. boo ko tegee sur la balance ak intérêt français yi am ci Sénégal mën nga ko régler nañu waxante dëgg du aywa euh, Lamine Diack man sama sama sama papa la aywa ñu ngi lay déglu waa Bakar Bala d'abord damay damay damay Khadija dafa laaj est-ce que am na kuréel googu ñuy wax ami de Lamine Diack waaw na am na déjà euh, euh, ay kuréel yoo xam ni sos nañ ko yoo xam ni peut-être dañu jug pour pour soutenir ko mais xam nga ñoom ñoom voilà ñoom lenn rek lañ mën a def mooy euh, ñu ñaxtu. voilà mais léegi beneen beneen laajam bi mooy yan action moom moo possible. waaw xam nga euh, fu mu nekk nii déjà boo xoolee il trois organisations de défense des droits humains yoo xam ni dañu dañu lëkkaloo. lu ci hmm. mel ni euh, RADDHO Ligue sénégalaise bi Maître Assane Dioma Ndiaye jiite ak forum du justiciable que présentement dañu bëgg a en tout cas dérouler benn plan d'action boo xam ni li ñu ciy viser mooy que ni. Euh, nañu respecté li nga xam te moom mooy ay ay ay droit am parce que ñun waxuñu sax bu ko bu ko kenn àttee parce que xam nga déjà nit nga topp ko pendant plus de deux ans yoo xam ni dossier bi bougé wul demul fenn te ñun on a l'impression que ni bëgguñu ko àtte parce que wax naa la ko léegi nee naa la en France même en matière criminelle instruction bi mënut a weesu ñaari at. non xam nga ma ñu tey ko masaka la problème yëpp loolu. na masta ñëw parce que ñoom dañu procédure bi Massata la gën a visé que Lamine Diack. tout à fait ñoom Massata nañu ñëw donc ils se bu ñu téyee ma pa Lamine Diack dina ñëw c' est aussi simple que ça. c' est une stratégie voilà justement laaj na na ñëw loolu mooy c' est ça le. clou kaaw kaaw Massata mais pour mais pour le moment c' est à dire ça difficile xam nga déjà pour kaaw Massata am na benn instruction boo xam ne au niveau national tijji nañu ko donc fii déjà euh, procédure Massata c' est déjà déclenché. dem na entendre nañ ko donc procédure moom moo ngi nekk en cours. mais tubaab bi dañ koo soxla. waaw en fait mais nag bon xam nga ñun duñu extradé cest à ñun. loolu je pense que ni mm-hmm. ñun ñëpp xam nañ ko. Mm. on n'extrade pas nos nationaux. loolu moo tax tubaab bi tamit euh, jël euh, jël président Mastiac. muy muy baayam. mais léegi nag loolu loolu loolu nag moo yoon. loolu déjà ah yoon tamit ñun. jàpp nañ ñu jaam te coloniser nañ ñu tubaab bi doxaluñu yoon ak ñun. loolu moom Babacar loolu loolu du yoon. Ah, loolu loolu kay du yoon loolu ko buñ ko loolu en fait. xam nga prise d'otage la. en loolu lay nuru nekkoon <laughs> place su Massata looy nan ngay def. bon c'est un peu difficile ah. c'est un difficile parce que xam nga déjà Massata euh, xëy na bu demee moom jàpp na ni que bon am na am na lu ko fay xaar. Ah, xëy na xëy na bu ñu ñëwee Sénégal ci lay gën a mun a. faire prévaloir c'est c'est. Euh, yow boo nekkoon place Massata looy def. damay dem damay dem sama papa damay dem ay paa bi. mais professeur man pour man aussi pour man bëgg man xam nga. peut-être boo nekkoon place Master looy def. non man en fait bëgguma sax. <laughs> man fi ma nekk nii moo ma gënal. mais li ma mais li ma bëgg a wax mooy justice bi c'est-à-dire que c'est vrai que aujourd'hui il s'agit de Lamine Diack après Lamine Diack gis nañ Cheikh Tidiane Gadio mais dama bëgg a wax ne il y a des yoo xamante ni dañ leen di fay tey contribuable Sénégal. pour ñu jël en charge la situation des Sénégalais qui se trouvent hors du pays. à l'extérieur des ministères des affaires étrangères. et des Sénégalais le plus souvent am na ñu ci bëri Sénégalais yu bëri yoo xamante ni reproché wuñ leen corruption reproché wuñ leen yeneen yi xëy ñàkk xam yoon wa am yoo ñu tëral ci réew moomu rek droit ba moo tax nga nekk ci kaso ñoo ngi foofu di croupir dans les prisons pour man ni ñu war a attaquer le dossier de Diack aujourd'hui noonu la ñu war a attaquer le dossier de Gadio noonu la ñu war a attaquer le dossier de tous ces inconnus là et qui sont boo nekkoon place u euh, Master Diack looy def man personnellement su ma nekkoon damay dem bàyyi ñu libéré paa bi ma dem li jëlti ko ak tubaab bi et j'estime même suñ may na serait-ce que pour l'honneur de mon père. Hmm. damay dem damay dem ñu déglu ma. imaam boo nekkoon place Masta Diack looy def. waaw xam nga xeex moom stratégie la. Hmm. cest fi mu nekk ni am na loo xam ne mënoo koo wax fekk yegguloo ci situation bi. Hmm. donc comme man maîtriser wu ma affaire yi trop. non wàllum principe la dañu jàpp bàyyam fële tubaab bi ñoom dossier bi bougé wul ba léegi ñaari at a ngi nii. parce que dañu soxla doom ji. non man moom fi ma toll fi ma toll léegi laa xam man. mooy ñaanal ko yàlla mu génn ci. aywa euh, Bakar euh, euh, Khadija boo nekkoon place master looy def. je m'abstiens. bàyyi ma su boo nekkoon place master. ah xanaa dem rek. da dem rek. am na benn kilifa bu ne problème mu tonton Lamine Diack ça se règle pas au tribunal mais autour d'un café. Hmm. Ah. mais premier ni aussi waxoon na ne jox na leen ci ay financement mais pourquoi ñooñu kenn déggu ñuy déglu ñoom Babacar ñoom Babacar gisuñu. ñooñu mais mais parce que parce que am na koo xam ni tey. moom du yow yaa ko intéressé li nga yor moo ko intéressé moo tax mu ñëw par exemple ay président yi du président moo intéressé nit ñi mais li mu yor hmm. moom moo intéressé balaa mu ko doon tey tey président Macky Sall mi balaa mu ko doon xam mu wàcc dina gis si di du xàmmee Sénégalais yi dinañ ko tufli dinañ ko ciipatu dinañ ko su bokkul ma la dinañ <laughs> maanaam dina xam ni Sénégalais yi moom lañ gëm comme personne mais li mu yor ndombo tànk yi muy joxe xaalis yi muy joxe yooyu la Sénégalais yi gëm euh, oui a différence ka kii nii tonton Lamine Diack comme ni ko Paco di waxee ak Michel Platini. no différence bi mooy euh, Platini dañuy ni dafa jël ay pots de vin maanaam hmm. dañ ko jox xaalis. Blatter ci benn affaire voilà. Hmm. moom ak Blatter ñoom bëriwul sax jox ko ah, xaalis voilà. Hmm. bon Lamine Diack nag dañ ni dafa am benn système de corruption bu mag boo xam daf ko defoon IAAF maanaam ay fédération de Russie yëpp ñuy athlètes yu drogué woon yëpp di fay xaalis ñu leen di bàyyi. ñi ni ñuy attribué parce que jeu yi xam nga enjeu pour ah, accueillir réew. Mm-hmm. ñu ni bon Massata moo doon négocier ak yenn état yi pour jël xaalis beeg détail yooyu. Mm-hmm. tu comprends noonu la deme bon pas aussi il faut dire il est très digne parce que il a expliqué que effectivement affaire xaalis am na mais moom dañu xaalis def ko financer l'action politique au Sénégal et cetera. donc voilà mais c'est là yooyu yëpp même kii bi la et puis. gis nga boo gisee Lamine Diack li ñu ko chargé yëpp aussi affaire racisme daf ci bokk. Mhm. parce que boo nekkee nit ku ñuul. ñu lay chargé yenn chargé yi te quand même Massata c' est vrai que procédure yi ñu ko kii yëpp dëgg la mais am na procédure yoo xam da ngay xam ne lii c' pas normal. bon euh, mais mais lenn maanaam dañ koy reproché loo xam ni du droit dañ koy reproché le fait que mu nekk doomu Lamine Diack. ba pare impliqué wu ci gestion moo tax ñun aussi africains yi ñu war a def ndànk aussi parce que xam nga jox loo xam ne nii àdduna bépp a ko bokk parce nit aussi xam nga faut pas prêter le flanc comme li ma waxoon ci Idrissa Seck ñu jox la lu mel ni IAF e nga xam ne àdduna bépp a ko bokk aussi li gënoon mooy nga bañ cee dugal sa doom ah loolu moom dama si ànd 100 euh, cent euh, li gënoon mooy nga bañ dugal sa doom si mel noonu ndax léeg dafay indi njaaxum ak njombe te tubaab yi ñoom bëgguñu bëgguñu yooyu daal euh, beneen bi mooy ñun suñu demee si réew tubaab yi ñun ñoo war a gën a def attention parce que tubaab yi ni àdduna tëdde ni mu doxee fu mu toll nii ñoom dañ ñoo xeeb ñoom nawloowuñu ba bu dara xewee ñun ni ñuy dalee suñu kaw ak ni ñuy dalee si kaw ñeneen du benn euh, Aïssa Diop Tall daf ko kaaw Platini Euh, ak euh, Lamine Diack benn la. mais tey Platini mi ngi. mi ngi vaquer à ses occupations et Platini sax euh, à l'époque man je me souviens le premier ministre français dafa génnoon en fait il a carrément défendu. ah oui carrément Manuel Valls. a il a il a parce que Platini icône la ko. xam nga lu ñun. mas naa ko benn télé am benn waay bu ma man par exemple Youssou Ndour ak ak ak Senghor Sénégal rek la gis ñu leen di critiquer hmm. maanaam sénégalais bëgguñu ki ñu am. ñun noonu lañ mel nañ noonu lañ fegéerugo maanaam dañoo bëgguñu suñuy mbokk mbokki jàmbur lañ bëgg fi ñu nii yow da ngay même boo defee lu baax Sénégal sax lekk keneen def beneen réew la ñuy gën a gis tubaab yi nag ñoom dañu bëgg seen i mbokk maanaam comme li kun ka maanaam ñoo xam ne nii ay royukaay lañ seen réew dañ leen a bëgg te dañ leen défendre. dëgg la aywa Bakar lan ngay jeexale waaw li may jeexale mooy juste damay lancer benn message te dama koy lancer à l'endroit de de l'État Sénégal c'est-à-dire que lépp loo xam ni euh, aide la lépp loo xam ni en tout cas soutien la boo xam ne war nañ ko mën a apporter que ce soit aide consulaire ou diplomatique pour que euh, le président Lamine Diack mën a ñib siwaat Sénégal nañ ko def ba pare beneen bi aussi mooy que ni présentement il faut nit ñi xam que ni ces droits sont en train d'être violés droits yi nga xam ne tey dañ ko ko may parce que déjà amul possibilité gis famille am beneen bi il a droit en tout cas euh, d'être jugé le plus rapidement possible loolu je pense que ni ñëpp xam nañ ko bu ñu la tegee loxo ak nu mu gën a gaawee war nañ la mun a àtte donc plus de deux ans loolu aussi nekk na loo xam ne lu lu en fait lu. loolu la loolu lu am la te mbir la moo xam ni amaana euh, tey ñi wax ay. Euh, association organisation les amis de Lamine Diack ñoom yooyu daf leen dépassé xam nga ñoom mun nañ fii yëngu-yëngal mais comme li imam wax mën nañ daje au moins ñaanal ko mën nañ daje dem gisi président mun nañ xool daal yan jéego lañ fiy def euh, sama wëlëre yëpp sama waa kër yi foofu ñoom Khalil Diack euh, ñoom ñëpp ñu ngi ko naan di leen ziar dañu am benn élément boo xam ne moom lañ bëgg xool si wàllum wér-gu-yaram élément Aïssatou Diop Tall balaa ñu dikkaat si jotaay yi di tuddee la les flore vaginale ak vulvaire ñu ngi ko constitué ci ay bactéries yu koy protégé équilibre ci wàllu cet gi nag dañ ko war a respecté jigéen gi warul fu tollu rekk di raxas kanamam waaye itam waru ko bàyyi ba muy salté lu ci ëpp ci ñaari ponk yooyu yëpp daf koy andi li ñuy woowee infection ku jigéen ki dafa war di raxas saa su ne kanamam ñaari yoon ci bés bi waru ko romb te bu ko raxasee ba pare warul jël ay loxoom di ko dugal ci biir ndax loolu mën na andi ay gàllankoor ci wàllu cet bi li nga xamante ne moom la ñuy woowee produit antiseptique yi nag ak antibactérien yi warul nekk benn yoon lu nga xamante ne dafay favoriser ay infection am na sax ñu naan dañoo war di utiliser ndox kase wala saabu ordinaire ngir setal partie boobu ginnaaw bu ku jigéen raxasee kanamam ba mu set dafa war a jël ab serviette bu set bu nga xamante ne dafay dafay fomp barab boobu ba mu wow kongu doogay mën di jëfandikoo leneen lu mu fay jëfandikoo. ci li ñuy woowee toilette publique maanaam douche yi nga xamante ni ñëpp ko bokk jigéen ki dafa war a xool bu baax naka la fay tuuree ndox. ginnaaw ku jigéen ki bu daal di demee fi ñu woowee ginnaaw kër nag dafa am technique bu nga xamante ne moom la war a raxasee boppam laata muy laal kanamam. te li ñu naan type d'épilation yi maanaam ni ñuy watoo loolu nag dafa war a nekk lu nga xamante ni jigéen ki daf ko war a respecté ngir muy nettoyer zone boobu noonu waaye tam jëfandikoo foofu it ay produits yu nga xamante ne dëppoog nag intimité ginnaaw épilation bi nag dañuy faral di digal jigéen ñi ñuy jël ay produits yuy désinfecté zone boobu ay produits yu nga xamante ne dafay adéquat ak yi ñuy woowee antiseptique yi avant ñuy def fa sunu ay sous-vêtements nga xamante ne mooy piercing yi ak tatouage yi ñuy faral di gis xale jigéen yi di ko def seen kanam loolu nag mii ji waa kër docteur digle wuñ ko benn yoon ndax nee nañ mën na àndal gàllankoor kii di jigéen kii la euh, mi ngi nii toog di ko delloo njukkal si élément boobu élément bi dafa tax ñu dugal suñu gan di euh, soxna Ami caw Ami Thiaw dafay yëngu si wàllum pajum cosaan ak aada soxna si ñu lay nuyu la dalal la ziar. maa leen di nuyu di leen sant di leen gërëm. kontaan ci euh, dañu ne tey jii bi la jagleel wàllu catu kanamu jigéen. te moom ci loolu lay yëngoo day damp di tamit defar ñi nga xamante ne ñooy am wasin bees yi ak ñi nga xamante ne ñoom lañuy ñuy doogay jox seen jëkkër ñu bëggoon xam liggéey boobu naka nga koy defee ak lan mooy conséquences yi ci ku jigéen ku deful loolu. waaw. nu mu tuddati sax ci waru kii bi ci waru kanamu jigéen dafa am loo xam ne waru ci baaxu ci. Hmm. waaw parce que saabu yi da nga faral xam saabu bi ngay def sa kanam. ndax saabu bu dee saabu ordinaire bi bu dee saabu ordinaire bi baax na bu dee cepp gi walla kii nu koy waxee waxeeti sax cepp beeg kii bi yëpp boobu boo koy xooj di ko naan baax na ci jigéen da lay raxas bi nga set eh, nu ñu koy waxeeti sax kii bi gowe bi waaw cepp bi ak gowe bi boobu yëpp baax na ci jigéen da lay raxas bu nga set wecc karité gi baax na boo amee sa karité gu sell boo xëyee defar sa kanam dalay raxas ba mu set wecc lépp loo xam ne normalu ci sa kanam da koy dindi set wecc ko defee boo booy raxasu nga raxasu ak saabu ordinaire bi. aywa mais yow sa liggéey yow lan la. man damay dàmp. dàmp mooy sa liggéey. waaw damay dàmp jigéen bu am doom. Mhm. damay dàmp doom. yaay ji. dangay dàmp ñu lay fay toppatoo ñaata la. prix bi nag mënuma ko wax. ndax man kii laa. damay def rek te yàlla tax sax presque xam nga am na ñoo xam ne par séance la ñuy def. Mhm. mais man damay déplacé wu deux jours yoo xam ne dinaa ñëw sa kër di la dàmp di dàmp sa doom. léegi saa yu ma la so ndey ji ñaata doom ji ñaata. yépp laa boole. ñoom ñaar ñaar waaw parce que man affaire cosaan lay def. ñaata la. waaw naa jox ñaari junni ak vax si si ñaari junni ak vax. loolu lañ lay fay. waaw bu dee ku sori déplacé professeur ci wàllu boobu ñaari préoccupation laa ci amoon bi ci njëkk moom mooy euh, je pense que prétexte bi mooy li nga wax ni journée bi ñuy célébrer tey. Mhm. jëm ci wàllum cetum jigéen ak lu ni mel en fait problème bi posé wu plus souvent moom mooy problème de dosage maanaam dañ lay dañ lay jox ay méthodes wala dañ lay jox ay astuces ne la nga ko utiliser mais parfois xam nga lu jëm ci wàllum intimité jigéen dafa xaw a sensible de trop. am na mhm. yenn mbir yoo xam ne boo ko jëfandikoo rek gàllankoor la lay gën a indil plutôt que euh, peut-être euh, wérgu yaram ci yor dosage boobu benn bi la beneen bi moom moo jëm ci li nga xam ne moom mooy jeunes yi léegi daanaka méthode traditionnelle yi gëmatuñ ko bu baax est-ce que loolu nekkul di favoriser seen liggéey bi nga xam ne mi ngi faral di réer. asu waaw man lu ma ko bëggoon laaj mooy parfois dañuy gis nit ñu ni ko yow dafa mel ne dàmpuñu la. lan moo tax en fait est-ce que damp dafay am lu muy changer ci nit walla dina dina def différence entre nit kii ak nit kii parce que parfois on voit des gens yoo xamante ni seen forme yi walla seen silhouette yi day rafet am rondeur yu rafet ñu ne kii dañ ko damp sama genre bi ñu ne kenn damp leen. <laughs> aywa euh, Aïssa Diop Tall. bon non bàyyi Paco waaw man dama bëgg xam parce que bi may déglu léegi reportage bi dama dégg ñu ne jigéen bu ñuy jébbale. Mhm. xam nga léegi ma bëgg xam jigéen bu bu bu xam ba pare ak ki ñuy jébbale léegi seen dàmp lan mooy différence aywa euh, imaam. aw ma ci xam-xam. aywa euh, léegi soxna si euh, kii dafa laaj léegi dañuy tàmbalee si astu jon hmm. astu nee na dañuy gis nit ñu naan kii dàmp nañ ko kii dàmpuñ ko loolu fi ñu ko teg. ah day am différence. Hmm. waaw ku ñu dàmp ak ku ñu dàmp. ku ñu dàmp lan mooy lan mooy différence bi day am différence ci yaram bi bu dee koo xam ne dafa am doom te dàmpuñu la day am différence parce que yow am na euh, instant yoo xam ne boo fi tolloo dootoo mënati dara. dootoo mënati dara sa yaram day bañ waaw. ngay hmm. teel a màgget sa yaram bañ. boo gisee ku teel a màgget dàmpuñu ko. dàmpuñu ah yu bari. bu dee hmm. doom yi ci boppam nag. Hmm? bu dee bébé bi ci boppam dàmpuñu ko. bébé bi dañ ko war a dàmp. bu ñu ko dàmpul nag léegi bébé bu ñu dàmpul ak bu ñu dàmp. Hmm. day am différence tamit. day am différence luy différence bi. tey bébé bi nga xam ne dàmpuñu ko mën na tarsis ni ci karo yi rek daanu damm. ci ñu dàmp nag. ki ñu dàmp mën na daanu di wax xalangu di jóg di dal te dara du ko dal. ci dëgëraay yax yi la. ndax yax yi day dëgg. waaw waaw léegi lii tradipraticien la léegi euh, kii nee na Khadija dafa laaj wàllum euh, par exemple boo nee jigéen mun na naan ceeb wala mun na naan euh, goowe yooyu léegi dosage bi ñu nga xam yow ban quantité nga war a naan ñaata nga si war a naan kañ nga ko war a naan ak Khadija yaa ngi wax dosage mais tamit conservation bi ni ñu ko war a dencee yooyu yëpp léeg du leer rek. déedéet boo dencee xam nga kii du yàqu du yàqu boo raxasee ba mu set def sa butel liitaru ndox. noonu rek bàyyi noonu. liitaru ndox yendu di naan bi ngoon jot. jël liitar bi rek di naan noonu. ah waaw. da li ci waxit bi xaw ma nañ koy waxee boo tuuree ndox sax day xeeñ reex xam ne xet benn xet bu garaaw du jóge ci sa yaram mais xam nga tubaab yi ñun loolu li la ñuy uteeg ñun par exemple bu ñu la joxee leen looy naan dañ la naan nii nga koy naanee euh, dose bii nga siy naan te boo koy denc tamit nii nga ko war mais yéen euh, dafa dafa ah, yegg xam nga dañu tubaab nag aywa duñ tubaab mais loolu wàllum wér-gu-yaram la waaw wàllum wér gu dafa dafa laaj ne euh, jigéen boo xam ne moom dañ ko jébbale ak jigéen boo xam ni nee xamoon na dara ñaar yooyu dàmp bi lu leen utale. Ah. xam naa xam naa daal xam naa daal ki ñu fekk ko xale. Hmm. dàmp baax na ci waaw mais d'accord baax na si moom mais pas li mu laaj mooy lan moo utalee ki ñu jébalee fekk xale ak ki nga xam ni fekk ko xale. ko xale nag fekk ko du xale. du xale yi day ute. ah du ute de boo ma woowee ma dàmp la de. waaye naa xam ne xam naa. ah mais ku ci ku dem guerre mondiale ñëwaat moom lu muy soxla dam ah waaw waaye man na saggu rek tëdd. ah, ah mais saggu boobu tamit loolu saggu bi saggu bi yëfu yëfu yëfu kii la masla naafeq la mais xam nañ nii Paco comme lu mu wax kooku soxlawul dàmp wala. kan kaw. ki nekkul xale. ki nekkul xale waaw. waaw yow xalaa da dem ne ko man du ma xale xam nga doo wax loolu. <laughs> ñoom est-ce que di ngeen xàmmee ku nekk. xam nga ak yow yow di waaw waaw. noo koy xàmmee bañ a xàmmee duy mandarga yi. ah ki ñu fekk xale bu ndaw. Hmm. am na mandarga yu bari sax yooyu xam ne kii fekk nañ ko xale ak kii yoon bi ñu aw ak yoon bi ñu aw duñ benn. waaye léegi wax ñu màndarga yi. waaye lan mooy différence màggetum kooba ak xale. <laughs> différence yi bari na de. Ah. xale bu ndaw boo ko fekkee da nga xam ne xale laa fekk. moom yaram bi day metti soo koy damp. ah yaram bi day metti foolal de. kooba bi nag moom dara du def dara. maa ne booy kii mu gën laa tëdd kay. dina law sax. dina léegi euh, soxna si tey li nga buggoon mu leer si bopp ñëpp. lan la. li ma bëggoon mu. leer si bopp ñëpp si wàllu liggéey mooy ñu dem ci cosaan bi rek. du ñu ay tubaab ay africain lañ. dem ci cosaan bi rek ndax mag ñi li leen fi bàyyi woon. ñuy am wer am kattan xale amatuñ ko léegi. Hmm. PDF yow loo si wax. boo fekkoon mag day am wer am kattan. boo man de pour man xam-xam la xam-xam yëpp am solo surtout yi nga xamante ni moom lañ fi bàyyi. effectivement li Khadija wax wax na euh, am na ci yoo xamante ni man personnellement gis naa ko mooy ñoo xam xëy na dañ leen dàmp après seen yaram am nu mu demee surtout xale yi xale bu juddu ñu ne ñu jiiñ ko ki ko dàmpoon. gis naa loolu man. Mm-hmm. donc loolu xëy na bu fekkee ne ça arrive ak lan moo koy indi est-ce que aussi. Euh, li dàmp xale mu gaañ. mu gaañu wala mu am ay ay déformation yooyu ñu ne ci dampin bi la. Ah. donc est-ce que loolu c'est parce que ñi koy def dañu mënul métier bi. wala soit. Euh, wala soit mais leneen li nga xamante ni aussi moom ma gën a intéressé man te professeur wax ko léegi mooy xam-xam aussi dafa am ay connaissances universelles. donc ñëpp ko bokk tey jii ci wàll bi ngeen di def yéen ci wàllu tubaab bi am na nu ñu koy defee. Mhm. am na ñoo xam dañu jàng anatomie. am nu ñu ko xamee est-ce que yéen tamit waajtaay boobu dangeen koy donn rek wala ndax dafay nekk loo xamante ni dañ la ciy préparer nga jàng ko ba yëg ne wan nga ko mën. mën naa tontu. Hmm? mais ko mën naa tontu directement. aywa ah waaw ñun suñu euh, ci suñu maam yi la ñu jëlee ñun man de jànguma ko fenn waaye suma maam laa ko jëlee man. Hmm. waaw sa maam nan la la ko joxee. day dàmp. ngay gis day gis day dàmp ngay gis. Hmm. dégg nga mu gis mu won la fi ngay jaar xale bu dee xale fi ngay jaar ay ay yaxam ak fi fi nga warut a laal. Hmm. waaw parce que xale comme yaram yaramam comme élastique yaramu xale comme élastique loo ci loo ci loo ci loo ci def ci bi muy nekk xale dina dem. waaye man gis naa koo xam ne jóge na am rek am doom am 6 mois ñëw fii ma dem di ko dàmp te dàmp naa xale bi macha allah. léegi Ami Thiaw yow da ngay laaj ñaari junni ak piisu wax. waaw lu tax piisu wax. cosaan la piis bi cosaan la. sa maam da ko doon laaj. waaw piis bi cosaan la. sa maam a xaalis xam nga ñoom mais daawul laaj ñaari junni moom. déedéet daawul laaj ñaari junni. waaye tey tey siyaas tey Dakar gii boo demoon tey siyaas foo dem siyaas ay 10 000 lañ lay laaj ay siyaas benn siyaas 5 000. mais yow yaa ko yokk. déggoo li ma la wax. waaw siyaas 5000. waaw d'accord wala siyaas 10 000 sa maam mais man dama dama boole fan yooyu yëpp. waaw ñëw di di di déplacement di ñëw di sa kër di la dam. d'accord léegi soo paree nga jox ma léegi dama ne yow sa sa maam. Mhm. moom daawul def 10 000 yow yaa ko yokk parce que tombéwul fii moom ñaata la doon def. moom dañ ko doon jox dara rek ak. dañ ko doon neexal rek yow nga <laughs> Adja ah. <laughs> man ci dàmp bi dama laaj ndax benn bu dee xale la wala bu dee jànk la ndax benn yoon nga koy dàmp. mu jeex wala dàmp bi c'est dans le long terme. yoon. bu dee kii jébali bi. Mhm. bu dee bi ñetti fan rek baax na wala ñetti fan chaque jour ñetti si ñetti fan yi chaque ñu ñu dàmp ko. ñetti fan wala macha allah Paco. waaw dama gis ni dama am ay jàngat am ñoo xam ni parce que dama am ay copains médecin mhm. ak docteur benn jour parce que moom mi ngi wax ni da ngay dafa digg ja xaw ma. waaw ah, xam nga gowe nga naan mais dama gis ni dama am sam benn xarit boo nga xam ni moom da doon dafa doon naan ay reen léegi reen yi mu doon naan dem ba yàq ay renon mhm. mm-hmm. parce que dose bi baaxul woon mhm. donc est-ce que yow yaa ngi jël en considération facteur yooyu yëpp waaw waaw reen yi kay xanaa boo ci defee la ëpp tey bu dee butéelu kii bi damay bañ a tudd tur wala mën naa ko wax. Evian bu ndaw butéelu Evian waaw au litre kii bi boobu boo ci defee ñetti doom baax na nga def ci sa ceeb di ko naan. ñetti doomu lan goowe. goowe bi. Hmm. Aïssa Diop Tall yaay jeexal. waaw balaa moo jeexal dafa am ko yónnee léegi ab laaj ci ñiy seetaan mu ne ndax gawe bi euh, moo kii sëy mën na ko jëfandikoo wala tamit jeune fii bi ki nga xam ne xamagul dara moom it war na mën a jëfandikoo gawe. mën nga ko naan. Hmm. Hmm. waaw góor pour muy jigéen pour raxas noonu rek. waaw mën nga ko naan mais yooyu tamit war nañ si laaj euh, doctor yi. ñu ñu def si euh, jàngat yoo xam ne dina ñu gën a jox xam-xam bu gën a leer. Aïssatou yaay jeexal d'habitude yi nga xam ne dañu nekk am césarienne dañuy ci jëlee ay euh, digg yuy métteeg yooyu noonu buñ ndax duñu dàmp bu ñu sukkandiku ci ñu bari yéen ku am césarienne même dàmp bi lay am ki nga xam te ne amu ko. waaw man man euh, man damay dàmp ñooñu ñu ñu kii ñu césarienne yëpp dama leen dàmp. mais tam même dàmp bi la. ci même bu ñu wasinee rek nga leen dàmp. wala bu amee 6 mois. Hmm. Hmm. bu amee 6 mois bi weer ci laa koy dàmp. léegi kooku ni nga koy dàmpee ak ni ngay dàmpee ku wasin normal benn la. benn la. dàmp bi benn la. Eh, ba xasee bi weer kay jeex na. mais fan la ñuy dàmp. yaram bi yëpp ak ndigg bi. kese waa yaram bi yëpp. amul dem feneen. yaram bi yëpp euh, Paco. yaram bi yëpp euh, on sans limite la léegi euh, soxna si. maam lan ngay jeexale li may jeexale daal mooy ñu gën a góorgóorlu ci fajum cosaan bi. ndax nañu seet ci suñu maam yi nag képp koo xam ne nekk nga mag dangay dem ak sa doole be waaye fi mu nekk ni xale léegi balaa ngay kii sa nga màgget ndax fonkatuñu loolu te loolu waaw te loolu la fi maam yi bàyyi woon nag nañ ci góorgóorlu di dàmp doom yi di dàmp yaay di defar seen eh, bopp ndax jigéen dafa war a set waaw jigéen dafa war a set jigéen dafa war a set surtout set bi. surtout loolu nag war nañ ko teel a jàngal xale yu ndaw yi. ñu ñu màgg ak loolu xale bu màggee dara rek dafay bokk si moom. <coughs> voilà léegi nag dafa am yoo xam ni comme ni ñu koy wax nii lu lu war la mais comme ñun kenn duñu si yar. Mm-hmm. dañuy dem ba sàggan. après euh, musiba bu nekk mun nañ si fekk. tey tam te wax nañ ko ne bokk na si gàllankoor yi nga xam ne xale jigéen tey dañ ko am. Mm-hmm. Euh, seen kanam yi day am yu ñu siy dugal yu bees yu ñuy jaay si marché ak yooyu. yooyu tamit yooyu man léeg-léeg di nga taseeg ñu ko ñu ko def mu indi leen jafe-jafe naturel bi daal lii ma la wax nii képp ku ko def doo am xet te dina macha allah. macha allah dina ci am wér gu yaram. Ami Thiaw euh, delloo ko njukkal euh, ni ñuy delloo njukkal euh, mboolem ñi nga xam ñu ngi yëngu si wàllum tradi praticien yëpp mm. dañu am benn élément bu ñu bëgg xool élément asu jonn na la nag bi paa si wàllum euh, internet ak xale balaa ñu dikk ak euh, suñu jotaay suñu gan bi di Mountaga Cissé tubaab bi faral di wax de l'utile à l'agréable waaye mel na ni internet tax nañu naan de l'utile au désagréable lu ni mel rek di firndeel jafe-jafe ak loraange yi internet faral di teg ñi nga xamante ni ñoom ñoo koy jëfandikoo. internet euh, nekkul nag lu wóor jamono yi ndax. Euh, gën naa yomb euh, accès bi gën naa yomb euh, outils yi maanaam yi ñuy jëfandikoo gën naa bare waaye loolu conséquence bi mu am mooy internet wóoratul li tax wóoratul mooy daanaka ñun téléphone yi ñuy jëfandikoo wala ordinateur yi information yi ci ñëw dafa bare ba amaguñu mokkalaguñu dëggantaan nuñ koy jëfandikoo loolu moo tax ba ni mu waroon wóoree wóoratu ko ñu faral di ci nemmeeku ay lorange lu ci mel ni compte yu ñuy piraté ak itam information yu nga xamante ni dëppoowul ak yoon ñu faral di ko jàllale ci lii di internet tax ba ñu bari sax dem nañ ba ragal di jëfandikoo internet bi bañ a utiliser internet si laa gën a gis sama bopp parce que mois bi ni internet lu mu ñu jural dafa bari torop léegi ñu bon ñi yàq nañ ñu baax ñi ba nga xam ne léegi kenn wóolootul def dara kenn ku bëgg def dara internet da ngay naan bu ma si duggee mbaa dara du ma si fekk te pourtant non parce que internet bien que am na loo xam baaxul am na safaan mais ba tey am na lu si baax lu si baax ngi fa li fa baax ngi fa ba tey. liñ ciy gis malheureusement dañuy gis ay sites yoo xam ne dañuy wax naka su dul noonu xaawi sutura doomu aadama. lu ñu nemmeeku moo di jamono ji ñu toll jafe na loolu nit di dund te doo utiliser lii di internet te nag lu ñu seetlu mooy moo di amul benn sart yoo xamante ni tëral nañ ko ngir laata kenn di ko jëfandikoo am ay sart yu dëgër yoo xamante ni di ko matal. lu mel ne nguur gi mën nañoo jàngal askan wi nu ñuy jëfandikoo internet à travers ci ay émission rajo wala télé wala ay journée de sensibilisation wala jàngal xale yi ci école yi euh, fexe ba xamal leen njariñ li ci nekk waaye aussi xamal leen euh, loraange yi ci nekk ndax loraange yi moo ëpp fuuf njariñ yi te loraange bu ñëw rek mën naa mën naa yàq lu bare ci doomu aadama lu ëpp ñetti milliards ci ay doomu aadama ñi ngi utiliser lii di internet te kii di Bill Gates créé ko lu ni mel nag jur na yoneeni mbir lu ci mel ni lu naan réseau sociaux yokk ci lu gën a indil jafe-jafe askan bi Astou Dione euh, delloo la njukkal euh, si élément boobu moom mooy euh, dugal sunu gan Mountaga Cissé. waaw Tounkara déjà di ko baalu ci xaar bi xaar na depuis. Ah, jërëjëf 22 ans fi donc Mountaga lañ invité woon mu nekk consultant en même temps di yëngu ci wàllum nu ñuy gérer internet ak yooyu. donc sama première question bi ma koy laaj rek mooy gis nañ que ni époque bii ñu toll site internet yi bëri na trop fii ci Sénégal mënuñu sax lim ñaata site. la ñuy gis ñuy ñuy ñuy juddu par bés au quotidien donc ñu bëggoon xam est-ce que dafa am benn benn revenu boo xamante ni peut-être euh, somme bi wala boog je dirais pas somme mais quand même revenu bi c'est c'est carrément gros wala book lan moo am derrière tout ça hmm. ba tax muy ñuy gis ñuy euh, internet bi euh, site yi plutôt di bëri tout le temps site web yi télé web yi également di bëri toujours aywa bi bon di ko di ko remercier aussi ah man sama professeur la nag moo tax ñëwee ma ko sàlloolu ah <laughs> donc euh, professeur laa koy wax euh, di ko di di kontaan trop si bokk ak moom plateau bi mais man li ma koy laaj tey jàpp naa ne euh, loo xamante nii la suñu société foofu la toll tey mooy waajaluñ ñu woon ci nit ñu ah. yare ci jëfandikoo jumtukaay yu mel nii tey jii boo demee dëkk bu mel ni Suisse ba ci ci wàllu journal papier dañuy wax xale bi ban comportement la ci war te tey foofu la suñu société toll ci ñu wax war a wax tey ji nit yi ban comportement sax la ñu war am par rapport à la théâtralisation ce qu'on appelle la théâtralisation de la revue de presse mm-hmm. est-ce que tey ji ni ñu ko déggee la ko war a nangoo mais tey par rapport ak xarala yu bees yi tey est-ce qu'on a cette culture là bu fekkee dafa am lu ñu rëcc nan la ñu mën a fexe ba dabu ko macha allah aywa euh, Paco nga bëgg wax si site internet man waaw vas-y Khadija ah, mi ngi ñëw non mi ngi ñëw. bàyyi non vas-y non vas-y. non je te jure vas-y. oui mais professeur nee na Paco. mais may naa la. bon euh, Aïssa Diop Tall. waaw man de li ma ko bëggoon laaj rek d'ailleurs dama koy nuyu moom itam sama professeur la comme Pape Djibril Fall ni mu ko nekkee woon elle est étudiante woon. Euh, di ko laaj juste que ndax euh, li nga xamante ne mooy cadre juridique bi nga bi ñu tënk pour wàllu site internet yi. ndax dëppoon nag jamono ji li nga xamante ne ñoom borom yi ñoom la nekk di def ak tamit ndax am na programme bu nga xamante ne dafay euh, saytu mbir moomu ndax jum ñu ngi waaj pour changer ko Adja en fait pour rebondir un peu ci euh, Aïssatou fi mu daanale moom mooy site internet yi je pense que ni Euh, jamono ji ñu toll la moo waral ñuy proliférer wu ñuy ñuy ñuy ñuy ñuy juddu comme ni ñuy juddoo mais problème bi mooy peut-être euh, contenu bi nga xam ne moom la ñuy fekk un peu ci site internet yi pour rebondir par rapport ak intervention Pape Djibril on a l'impression qu'au Sénégal on utilise internet pour faire du mal à autrui que pour jël ci li nga xam ne moom mooy liñ loo xam ne mën nañu indi la laaj bi mooy ndax euh, unité comme ni ñu amee télévision waa CNRA bu ñu defee dara lu jaadool peut-être ñoom am ñoom lañ fi teg pour ñu réguler mbir yi xool naka la mbir yi jaaree ndax site internet internet yi am nañ ko gu mel noonu te ndax ñi ngi dox liggéey bi ni mu fa waree liggéey baa ngi dox ni mu fa waree. Euh, Paco. waaw li may ci sànni tuuti rek mooy sama question Khadija ak kii dañ ko wax mais je veux juste savoir est-ce que prolifération site internet yi duñ ko réguler. Mm. sinon on va au désordre. Mm. Imam am si bëgg a wax. waaw man euh, fexe rek ba tiim internet bi. ñu bañ a sàggan ba internet bi tiim parce que tamit lépp loo gis ak yar la ak mm. tàggat ci nit mm-hmm. mais boo xoolee fi ñu toll nii ñii ba léegi eh, yëfi dañuy fo ci internet bi dañ ciy fo mm-hmm. maanaam au lieu ñu def ci liggéey yu mag ñu bëree bëri yëfi caaxaan lañ ko jàppee beneen bi aussi ñu bëri dañu jàpp ne occasion la boo xamante ne nii lépp loo nar a def ci ñaaw ñaawteef mën nga koo def te dara du la ci fekk mm-hmm. parce que mën ngaa saaga nit ki du la gis mën nga koo wax musiba du la gis yëfi xamadi ak yëfi yaree di ko yooyu <clears throat> nga xam ne bokkul ci suñu culture bokkul ci suñu aada bokkul ci suñu baax baax tey gis nañ nit ñi mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi yàq nit ñi tey vraiment bu njëkk mag sax bu la saaga da nga koy a delloo saaga bi mhm. da naan ko ruus naa sa kii bi mais te yooyu amul da ngay gis xale bu tuuti saaga président de la république xale bu tuuti saaga kilifa diine vraiment léegi kenn amatul worma mhm. te loolu tey buñ ko ñemee rek internet bi moo tax maanaam dañu yóbbante ay saaga donc loolu maa ngi laaj professeur nan la ñuy fexee ba loolu ñu amal ko gàllankoor parce que man su ma gisee ñu wax kilifa lu ñaaw ci internet hmm. damay am gàcce damay rusa rusa rus ba duma xam lan laay wax donc euh, loolu jar a bàyyi xel. loolu loolu imaam dafa am mais euh, du euh, du saaga rek moo am mais tuumaalaate. sosalaate waxal nit du dëgg. man mii pàcc bi woon nañ dama dem affaire. Ah, mais wax nañ ah. loolu ah. ah. waaw yow waxaloon nañ loolu loolu mësta am. mësta am mësta am mbaat si kaw mësta am te du mësta am. mais professeur yow suñ la waxee loolu sax yow loolu garaaw. Hmm. mais yow ngay gis ku dugg ci internet bi. mais yàq sa der yàq boo nga xam ne te barke Seydina Muhammad mais loolu yàq der la parce que tey xam nga tey sénégalais yi ñëpp xam nañ ni bëgguñu transhumant mm. bëgguñu mm-hmm. ko jóge fii dem fële léegi yow suñ la nee da nga mooy ñu ngi naan sénégalais yow ñii ku bon nga ku yées nga te yow ak ñëpp benn ngeen rek euh, yàlla xam na ni man affaire affaire yow yow bokkoo si sax man ma si bokk bokkuma APR bon <laughs> professeur. en tout cas daal internet day may fit ñi nga xam ne de base amuñu fit. internet lool. te te te Pago dañ koy wax euh, saa su ne imam ba mos nañ ko wax fii euh, ku mel ni man. mun nga ni bokk naa APR ma am naa fu ma ko weddee. mais pàcc bi tey am na ñoo xam ni. amuñu fu ñu weddee seen der yàqu na ba faw te loolu moom imaam leen jàngal te bi ci gën a doy waar ci internet mooy da ngay gis ku nga xamante ne ndeysaan il était dans son coin mhm. jékki-jékki rek benn affaire bu ndaw mu yàq addinaam yëpp mu jaafa dépérir ñàkk liggéeyam gis nañ ko fi récemment ak suñu benn naataango vraiment waa gars yi yi koy utiliser war nañu xoolaat bu baax a baax te ñu xam ne ñu ngi tas ay famille ah man li mu ci mën a wax professeur te lii c'est dafa am par exemple ay ñu nekk Espagne ñu ma woo. ñoo xam dañuy suivre. ñu ne dañ bëgg nga waxal ñu professeur dafa amoon benn sénégalais bu nekkoon foofu gars yi ñu ci bëri dañuy jaay dañuy am bagage mhm. waa ji dafa dem di collaborer ak police di dem di di dénoncer sénégalais yi ñu amul kay ñu am ay bagage ñu nekk lii ba pare nekk ci internet bi di woote ni moom activiste la. waa ji sénégalais la. sénégalais la. yàkkal sénégalais yi daw génne Espagne dem France ba pare nekk France di woote activiste hmm. c'est que cest à il faut ñu wax lu am mooy ni que vraiment man Sénégal yi dama xamul ñoom fan la ñu yaroo. kooku ñooñu identifié nañ ko. identifié nañ ko. kan la nu mu tudd dinaa ut dinaa dinaa dinaa jël euh, war nañ ma yónnee par email. Mhm. xam nga naa ko indi fii comme ça euh, waa euh, professeur Mountaga Cissé dégg nga internet moom xam nga ñëpp la soxal fii ñëpp la concerné tey. Euh, mais li ñu mën a wax rek mooy lu lu baaxan si mhm. mën nañ ko jëfandikoo si anam yoo xam ni daf lay amal njariñ lu mag waaye it njaaxum mi ngi si te dafa mel ni ñun ni ñu dégg li ñu dégg fii mooy si njaaxum li la gën a jublu te si lu baax li loolu ànd nga si waaw internet dama lay nuyu d'abord di nuyu sa naataangoo yi di nuyu téléspectateurs yi di rafetlu euh, invitation bi effectivement internet bari na ay njaaxum yu bari yu ci nekk mais damaa jàpp ne njariñ li moo ëpp njëriñ lay ëpp ndax waaw ndax xam nga internet léegi mën na toog këram sax di jàng jàngal mm. boppam jaar la ko ci internet muy njàngum diine wala njàngum xam-xam loolu mi ci mais euh, am na ñu koy jëfandikoo aussi pour def lu ñaaw teg ay ñaawteef te internet dafa nekk euh, euh, loo xam ne léegi dafay jox ampleur information am nga bu njëkk ba Euh, dañu doon wax ni média traditionnel ñoom ñoo amoon le monopole de l'information muy télé rajo presse écrite ñoom rek ñoo amoon possibilité tas xibaar mais léegi internet dafa jox képp ku yor téléphone par exemple xam nga Sénégal le taux de pénétration de l'internet dépassé na 63 pour cent mm. nga xam ne presque sénégalais yépp am nañ téléphone te ñu ngi am internet nit day toog biir këram sax def vidéo am dugal ko ci euh, Facebook wala yeneen réseaux sociaux yi léegi nag Euh, su may su may jaar ci loolu damay ñëw ci question bu soxna Astou li mu wax est-ce que euh, nekkul source de revenu ba mu waral ñu bare dañ fay jaar euh, créer ay site internet man am na ay jamono doon naa recenser les sites internet au Sénégal il y a deux ans de cela mais dama dem ba mujj ma arrêté parce que jotoon naa recenser plus de deux cent cinquante sites te loolu ça fait deux ans maintenant mm. nga xam ne léegi sites yi boo leen di xool mën nañ fa assez trois cent mm. mais loolu li ko waral mooy y cadre juridique bu koy encadrer xam nga hmm. tey du ku mu neex nga ubbi télé war nga am lisance wala bu waree ubbi euh, presse écrite il faut nga déclarer sa sa parution euh, il faut nga am une rédaction te pour nga am rédaction il faut des journalistes mais loolu nekkul si internet. dëgg la da nekk informaticien wala nga xam nga xam ku benn xaritu informaticien nga am sa xaalis. Mhm. nga jox ko. en dix minutes mu créer la parce que danaan la bon internet mën nga si am xaalis. Mhm. parce que effectivement internet am na xaalis. am na ñoo xam ne dañuy am seen chaîne YouTube par exemple di fa produire ay vidéos. ñoom dootuñu jaar ci tele yi mais ci internet lañuy ñuy. loolu day indi kon euh, laaju Khadija bi wàllum contenu bi. voilà exactement est-ce que du loolu nag léegi mhm. moom mooy mbir mi dëggantaan. waaw loolu mooy mbir mi xam nga bu njëkk ba pour utiliser xarala yi comme ordinateur par exemple dafa daan laaj nga jàng. nga mën a liir nga mën a bind mën a utiliser euh, informatique mais léegi même boo jàngul mën nga utiliser internet ndax dañu nekk société africaine muy société boo xam ne euh, image ak kàllaama kàddu moom la ñuy jëfandikoo te léegi sa téléphone boo gis image boo demee fu mel ne YouTube wala site internet yi boo gisee image mën nga ko xam lan la bëgg a wax nga ubbi ko donc ce qui fait nag bu ñu tàmbale woon ci benn parce que y a dix ans de cela taux de pénétration internet Sénégal ay deux trois pour cent la woon maanaam ñaari sénégalais sur si téeméer ñoo ko doon am mais léegi presque soixante deux pour cent nga xam ne léegi même nit bu jàngul mën na jëfandikoo internet. kon daal internet yow nga ni fii amul réglementation daal ci réew mi. bon am na ay ay ay loi yoo xam ne. teg nañ ko par exemple le code pénal bi ñu révisé fin 2016. au Sénégal mm-hmm. wax na ne ku saaga ci internet. lii la yoon teg sa kaw. si lañ jàppee ñoom Assane voilà effectivement mm-hmm. loolu am na. Mm-hmm. mais wa bu dee wàllu ubbi site internet par exemple. dafa am code de la presse bu fi nekk moo nekk toujours en vigueur. code de la presse boobu waxul woon ci site internet. nga xam ne ku mu neex ubbi site internet. léegi kon imam li mu laaj tamit dafa am solo mu tagaas nan la ñuy def ba ñàkk ko. waaw léegi nag loolu ñun par exemple man bokk naa ci benn association de presse en ligne euh, jotoon nañu liggéey euh, pour def lu ñuy wax la régulation de la presse en ligne mais ci liggéey boobu dañ ko dugal ci li ñuy wax le projet de code de la presse nga xam ne d'ailleurs voté nañ ko assemblée euh, août août 2017 waaw mais waa gouvernement ministère de la communication ne normalement ci mois de juin bi war nañ ko war nañ ko jàllale mhm. mais loolu jàpp naa ni dina nekk solution parce que encadré nañ ko xam nga aujourd'hui ku mu neex nga anonyme ubbi site internet mais dañ ne bu code de la presse bees dañ ne boo ubbee site internet da ngay def lu ñuy wax mention légale mhm. mention légale mooy nga ne site bi diw moo ko moom adresse am lii la lii mooy numéro de téléphone am nga xam ne tey bu ñu bindee si Tunkara loo xamante ne que amul yow am nga possibilité contacter ki moom site bi mais tey dinañ bind si benn site internet nga ubbi ko nga dem contact doo xam ku moom sët bi. Euh, léegi paa bi dafa wax euh, lu am solo. Mm-hmm. si wàllum euh, ñun yar bi nga xam ne. Mm-hmm. mbir mi ñëw na noonu rek. xëpp suñu kaw te dafay dellu si li imaam wax. bu mm-hmm. demee ba internet tiim ñu. te ñun tiimuñu ko. te ñun amuñu culture internet ak te kenn yaruñu si affaire bi nan lañu ko jëfandikoo mu am yar de masse est-ce que bu ñu indee tey code de la presse. c'est très bien ñu bind ko yooyu mais bu yar bi tamit. demul mbir yooyu. waaw lépp man damaa jàpp ne lépp ci effectivement ci yar bi la. parce que nit ñi on a beau mettre devant eux des lois mais bu fekkente ne que nit ñi euh, ci yar ba te yar ci wàllu famille la si si biir kër gi lay tàmbalee ensuite fa ngay jàngee bu dee daara ja la wala école ba la et cetera wala askan bi ngay dundee aussi parce que askan bi ngay évoluer mën na am influence ci sa yar yow timit bu mm. fekkee saa yow ubbee internet gis fa kàllaama bu ñaaw. bu fekkee yow ndaw nga mën na dem loolu dina la influence ce qui fait nag loolu peut-être autorités yi war nañ ci euh, jël ay ay matuwaay. fexe ba di sensibiliser nit ñi. parce que saaga bi saaga euh, hmm. boo xoolee par exemple nga dem Seneweb nga wala nga dem euh, xalima wala yooyu yëpp tey booy xool commentaire ñi saaga ñëpp kenn mënu leen topp. surtout mais attention foofu Tunkara li li li ci graaw mooy dafa am nag ñoo xam ne loolu mooy dundal seen business ci internet bi ma ubbi sama site internet. Euh, bind benn article ci wàllu diine wala wàllu économie du intéressé kenn par mhm. exemple nit ñi duñ ko lire mais tey suñu waxoon lu ñaaw ci Tunkara mhm. kenn ñëw wax saaga la mhm. keneen ñëw commenté keneen ñëw commenté loolu mooy dundal site bi. Hmm. ce qui fait am na am na borom site internet yoo xam ne dañuy sax encouragé loolu. Hmm. te duñ ko nangu loolu am na ça existe. Hmm. même bu dee kilifa diine yi wala kilifa njiitu réew mi yenn autorités yi. buñ leen di saaga ci internet day mel na que nit ñi dañ koy. encouragé imam ak euh, paa bi euh, li ngeen wax xam nga dafa dafa ànd. te day ñëwaat léegi si lu euh, lu Mountaga Seye wax imam mooy ñun sénégalais. saaga ak lu ñaaw moo ñu gën a intéressé que bu ñu bind si mbay mi bu ñu bind si koom bu ñu bind si imaam loolu garaaw na de. garaaw na professeur fan yii rek euh, démb bërki dëmbu maa ngi gis ñu jël benn vidéo euh, benn benn photo boo xam ne xalifu général di Tidiane. vraiment moom bi bi Macky sàll demee Tiwaawoon ni mu leen dalalee ci résidence bi foofu. Mm-hmm. waa ji ne xoolal pré xalifu général di Tidiane mu ngi nii biir pale dégg nga mu ngi nii gis nga ñu ngi koy jox teraanga yi nii te loolu mooy bi mag Macky demee Tiwaawoon euh, fan yooyu fanaan fa ci résidence bi mais kooku xalif bi di ko defal teraanga waaw xalifa bi moo doon teral président Macky ak soxnaam waa ji ne gis nga xalifa baa ngi nii ci biir pale bi mag Macky di ko jox kii mais bi ma gisee dama ne lii musiba la. te te gis nañ tamit xalif bi ngay wax nii. waaw nit ñi sénégalais yi amuñu sax kersa wax ko lu ñaaw. si waaw mais xalifa bi xalifa bu day noonu xalifa ak li muy représenté ci réew mi. mais bu mën na mën na wax sax nga bañ a d'accord ak moom mais bul sos. ah loolu def. bul sos nga nekk ba pare nga ngay wax sa kàddu mel ni lii ngay wax alxuraan la. loolu bu dul woon internet du mën a nekk. mais loolu loolu li koy indi mooy. Euh, ku mel ne man yore sama site internet. mu leer ma ne su ma waxee loolu la ñuy wax fake news nga xam ne dafa wër àdduna loolu jaaxalul sénégalais rek. Mm-hmm. ba ci américains yi seen élection yi mujj loolu daf ci am influence bu am doole. maanaam sos information. jëmmal ko ba mel ne dëgg la mm. bu ku ko gis soo deful attention trop xam nga maa wax sànq ni bu njëkk ba média traditionnel ñoo amoon le monopole de l'information ñoom rek ñoo amoon possibilité joxe xibaar mm. mais léegi nii dangay ngay tëj sa biir nekk créer benn information dugal ko ci réseau sociaux yi mu am benn effet boule de neige di wër si li oustaz wax ak professeur foofu je pense que jot na alors ñu ñu attirer attention internautes yi ci ñan ñooy nekk derrière tout ça Hmm. parce que am na ñu si bëri ñoo xamante ne dañuy jàpp ne ku ubbi site internet rek journaliste nga. Hmm. war a ku bind joxe information journaliste nga. te je pense que loolu jot na ñu surtout war na nit yi que ni euh, site bi wala bokk lii journaliste bind ko parce que souvent luy tax sax ñu gën a attaqué journalistes yi journalistes yi nii lañ mel taskatu xibaar nii lañ mel je pense que surtout ci affaire internet la. parce que lu nekk la ñuy gis façon façon loolu la parce que am na ñu bëri ñu nekk ci yi ñoo xam ne. ñu koy créé la mën jànguñu journalisme xamuñu luy journalisme. am seen xaalis lañ rek. ñoo xamante ne jug nañ créé. man man dama jàpp ni Sénégal yi suñ toogee sax di di di wax ci affaire yu site internet yi man je pense que perte de temps la hmm. parce que site internet yoo nga xam ne am na ci ñoo nga xam ne il font du bon boulot hmm. am na ñenn ñoo nga xam ne règlement de compte la raquette gis nañ fi yi fi mujj xew bu yàggul hmm. am man su ma demee man xam man dootuma liir commentaire xam nga lu tax parce que suñ demee ba saaga ay wàlli wu yi wax ci fii ci réew mi mm-hmm. man dootuma liirati commentaire u internet parce que benn nit mën na toog dugal soixante commentaires chômeur la liggéeyu xëw yu gontuwul mm. moom na am paasu mille francs am dugal di sa di la saaga rek di mm-hmm. changer ay tur mm-hmm. donc te mën na xëy na de benn nit la mais saaga nañu walliw ci ci côté Mame Alhaji Malick saaga walliw ci côté Sëñ Touba ci internet bi nit ñi di ko gis ay commentaire moo tax man ñuy toog di lire commentaire sax laa ni dañu am jot mais euh, page bi dafay dellu si waat si ni que ñun Sénégal yarawuñu benn bés dama toog ak ministre bi yoroon PSE ma ni ko monsieur le ministre tey ñu ngi wax PSE dañuy defar Ila Touba dañuy defar Diamniadio dañuy defar ay tali ay kii ma ni ko mais Sénégalais yi ñoom kan moo leen di yar mu ne ma ah dossier boobu moom kenn ñeewu ko laal. est-ce que du dellu si waat si loolu. non tout à fait lépp ci yar rek lay dellu xam nga li Nelson Mandela doon wax na boo bëggee nërmeel réew rek atta attaque système éducatif am. Mhm. te système éducatif bi foog ñu inclure ci lii yëpp. mais foog ñu am courage foog ñu am courage di mën a appréhender loo xamante nii dafay war a ñëw te ñëwagul. affaire Chine luñ ci mën bi wax ne régime euh, autoritaire la ak mais bi face à YouTube ak Google mais dañu mhm. développé benn résilience mhm. bu extraordinaire man maa lire Michelle Obama jabaru Barack Obama mu ne ñaari doom yi euh, Chacha ak Malia mu ne amuñu sax compte Facebook a mhm. un moment donné amuñu woon compte Facebook te boobu ay grande fille lañu woon mu ne du ñu seetaan télé du lundi au vendredi samedi rek la ñuy seetaan film mooy l'incroyable famille Kardashian te mu ne mënoo xam sax nu muy méttee Barack Obama bu ñuy seetaan film boobu ñoom Bush gis nga ci ay courants la ñu màggee. c'est-à-dire que pour man aussi am na ci loo xamante ni fulla ak fayda moom moo koy lijjanti. te xale à un moment donné ci yaram pour man bu fekkee ne droit de l'homme dañu bëgg la gëmloo ne li libéralisation xaw ma libéral xaw ma libertinage bi ñu bëgg. loolu dafay indi problème pour man xale à un moment donné. il faut énormément de privation mais mais ay jàngale par exemple euh, Mountaga. Euh, dommage la tey ñun suñu doom yi si école yi kenn du leen jàngal. lan mooy internet internet boobu lan moo si nekk internet boobu yow fan nga war a dem foo warta dem dama mës a xool benn publicité si tubaab yi de ñuy publicité danger bi nekk si internet imam dañuy wane benn koo xam ne maanaam wëyu la ñëw di seet si sa doom bu am juróomi at nga ne ko waa duggal ñu seet si ko xam nga ñu jékki-jékki ñu wane koo xam ne drogué la hmm. mu ñëw di seet si sa doom bu am juróomi at nga ne ko waa duggal seet si koo xam ne raykatu ñu wane koo xam ne raykatu nit la mhm. seet sa doom bu am juróomi nga ne ko waa dugal léegi ñu lay misaalal ne internet bi ñii ñëpp a ngi si te yow soo bàyyiwul xel sa doom mhm. boo xam la ñooñ ñooy ñëw si moom mais moom mooy dem si ñoom parce que gis nañ ko benn moment ay xale yu bëri ñu leen di détourner euh, li may mujjee foofu mhm. Chine temps yii dañu dañu tere Peppa Pig mën nañu xam ngeen Peppa Pig Peppa cochon ouais ah Peppa Pig Peppa cochon Chine imam ay dessin animé la ay ay mbaam léegi chinois yi ñu ne léegi lii seen doom yi dootuñu ko seetaan. Mhm. parce que dañoo gis ni xale chinois yi dañoo commencé di toppandoo mbaam yooyu. di def comme ay mbaam. ñu ne léegi te ma yokkal la ci Chine dañoo créer benn système de notation de la vie numérique maanaam euh, dañuy xool nit ñi ni ñuy comporté woo ci internet bi ñu leen jox ay point mhm. points yooyu dafay am influence ci tey bu ñu la doon jox bourse ñu xam ndax dinañ ko wàññi wala dinañ ko yokk suñ la waree suñ la waree recruter dinañ xool yow nan ngay comporté woo ci internet bi soo waree am par exemple parce que ay billets de train ak yëpp ku nekk c'est personnalisé ku nekk li nga war a fay hmm. lu yëpp dañ koy xool société bi dañuy xool léegi parce que internet mooy li nga wax xale yi léegi dafa dem ba euh, lu numérique la woon lu virtuel la woon mais dafa dem ba am influence suñu dund ah, parce que dañuy gis benn doomu kilifa euh, dem si internet wax fa naka su dul noonu mais loolu dafay dem ba am impact ci notoriété kilifa boobu. parce que dañu xam ne kii ah. peut-être yarul doomam wala bàyyi na ko mu def si. loolu loolu am la euh, waajur yi nañu nañu bàyyi xel ne que internet moom. Euh, àdduna la te àdduna am na lu baax. am na ah. lu si bon mais fii li garaaw mooy dafa ñëw dugg si sa biir kër ba pare ñun ñu jël ko takk ko ak ñoom euh, dañ si war a yar suñu xale yar suñu doom yar suñu rakk yar suñu jarbaat. je pense que une dernière intervention je pense que internet bu muy ñëw fii boog Sénégal man kiiwu Sénégal laay jël. Mm-hmm. pareewuñu màggatuñu si pareeguñu dafa ne euh, benn benn instrument la boo xam ne ñëw na ñu adopté ko te pareeguñu je pense que nit ki nag balaa ngay dem di sóobu ci benn affaire yàlla sax nee na xam leen ma balaa ngeen maa jaamu je pense que boo ko xamulee mm. boo xamulee internet mënoo ko lijjanti daal loolu loolu am la parce que ñu euh, ñi ëpp ñi dem internet sax léeg ñoom jànguñu euh, dañ si dem noonu rek parce que mën nañ si dem ay bon damay dëggal rek li professeur doon wax sànq parce que j'ai une amie bu nga xamante ne bitim réew la nekk dafa dem def def entretien ci benn entreprise mais ñoom waxuñu ko dinañ dem xool face page Facebook am. Mm-hmm. foofu lañ dem xool lépp lu mu fay def. du matin au soir mais heureusement elle est très effacée. effacée macha allah après ba ñu embauché ko recruter ko quelque temps. Mm. ci lañ koy doog a wax ne dem nañ page Facebook am. xool lan la fay publier yan genre commentaire lay def et donc elle a attiré mon attention ci loolu. tey nit ki day bu ñu fàttee mukk ne ay ay Facebook ak yooyu lépp loo si def du mës a dañ. ba ba du dañ ba faw te ñun ñi tey temps bi ñuy def si Facebook WhatsApp ak yooyu euh, suñ ko doon def si gën a xóotal xam-xam gën a jàng métier gën a jàng suñu diine boo matul dinañ gën a avancé. Paco waaw dama bëggoon terminer rek di wax ni que foog yi nangu te bañ naa nekk naa fekk. soo gisee internet am fi doole mooy dëkk bee bëri naa fekk parce que internet bi su fi nekkee si yi bëri fi réglement de contre kese la du matin au soir da ngay gis ko nga xam ne mënul sa bind turam benn waaye gis ko ni ko cinquante mille ngi nii damal rayal ma Tunkara ci internet bi hmm. sosol ma ko waxal ma ko lii ba pare yow soo buggee fayu ñu ne non yax moom yemu leen niveau bu tontonteeg moom te fekk na moom def na ay dégâts ba pare tey gis nañ euh, Cheikh Gadiaga ak Moïse Rampino ñu ngi ñu ngi tëj nañ leen kaso te affaire internet yooyu moom moo ko moo ko waral professeur Mountaga Cissé lan ngay jeexale waa li may jeexalee mooy euh, ñi xam ne internet lu ñu fa def mënuñu dund anonymement sur internet maanaam loo def rek mhm. dafay bàyyi trace vous êtes voilà loo fa def rek ndax par exemple am na ay application yu nekk suñu téléphone yi boo ko laajoon tey dalay lay wax ne la depuis 1er janvier 2018 ba tey jii nii fépp foo dem xam na ko enregistré na peut-être yow doo ko xam mais dina la ko wax lu mel ne Facebook par exemple am na benn euh, lien bu ñuy wax télécharger boo données boo ko télécharger woon tey dalay wax lépp loo def sur Facebook am na yoo xam ne sax da nga koy fàtte ki nga maanaam like yi nga def ndax Facebook moom euh, nekk na outil boo xam ne ñoom dañ ne am nañ 98 catégories d'information ci benn nit maanaam sa tur sa sant fi nga dëkk fa nga juddoo say xarit say centre d'intérêt ba mu mat 98 mm. imaginez loolu nga xam ne internet dafa doon outil bu bu graaw boo xam ne arme la aujourd'hui mm-hmm. donc ce qui fait comme ñun Sénégal peut-être préparé wuñ ci daf ñu bett mm. parce que dafa ñëw rek nekk benn buum boo xam ne ëpp nañu loxo ce qui fait que nag léegi muy autorité yi di di ñun Sénégal yi suñu bopp ñu yor seen ay njaboot il faut que ñu jàng lan mooy njëriñu internet. Euh, loolu tamit sunu autorités yi euh, dañ si war a bay waar vraiment euh, defuñu ko du tout du tout. dañoo seetaan dañu seetaan noonu rek Sénégalais yi nekk noonu si internet bi te amul benn. ñàkk yu ñu leen defal benn encadrement bu ñu leen defal yenn formation jàngaluñ ko si école yi jàngaluñ ko si média yi jàngaluñ ko fenn. Sénégalais yi nan la ñu war a jëfandikoo ak internet loolu war nañ si ubbi lël. fexe ba yar ñu wan ñu njëriñ yi si nekk ni ñuy poussé ba tey. Euh, ñu mën a jël xéewal yi si nekk te euh, musiba yi ñu tegee ko wet imam la ngay jeexale tey professeur li may jeexale ñaari message euh, benn bi mooy sunu sëriñ Oustaz Alioune Sall hmm. le 9 incha allah daaraam ji xale yi mokkal alxuraan ci la ñu war a tari mais bés bi nag mu dara jaalee ko sunu kilifa sëñ Abdou Mbacke bu Daaru Muxti kon euh, nee na mu ngi la koy yëgal yow. ci sa bopp loolu la wax ni sa bés. ñooñu ñooñu samay waa kër lañ. Euh, waaw sëñ Abdou fële ca Daaru Moxti. waaw euh, ñoom la sax kii bi daara ji daaru cub la nekk. ñu ngi ci woo ñëpp léegi nag dafa am ku mooy yónnee message nee na ñu wax nit ñi nga xam dañuy yeete xëdd. parce que ay trois 3 heures du matin ñuy tëgg di ah, tànqal nit ñi ah, ah. ne dañuy yee nit ñi xëdd. nee na loolu àq la nee na ku bëgg a yeewu ku nekk am nga réveil yooyu nañ ko bàyyi. Hmm. xumb mbuub mbaay di ci boole ay tamaak yu ci ci bokkul trois heures du matin daal nee na ñu dimbale ko wax nit ñi ñu bàyyi ko ah, loolu euh, dafa am solo parce que lislaam ak euh, tànxalaate ñaar yooyu ànduñu lislaam amul force kenn amul buntu xatal kenn euh, suñu borom moom maanaam jàmm ak hmm. xéwal daal la woote hmm. Aïda Diop Tall waa di rafetlu jotaay bi encore une fois ndax ku fi toog ku ne muy téléspectateur yi ñuy seetaan ak ñun ñu fi toog ku fi jóge ku ne danga fiy jëlee xam Euh, di leen jaajëfal di leen jox dig dig daje euh, laata may jeexal ñi nga xamante ne ñooy association des sourds-muets du Sénégal. nee nañ dañuy seetaan bu baax a baax émission bi mais malheureusement dañu comprendre leen nañ nag il aimerait avoir ici quelqu'un bu nga xamante ne peut-être langage de signe lay def hmm. nee nañ ma jottali leen ko bu baax a baax ah, loolu ñoom yow lañ ko wax de yaa lañ ko war a lijjanti waaw <laughs> d'accord dinaa ko lijjanti <laughs> incha allah ah, di jaajëfal ñëpp di jaajëfal aussi waa Mauritanie depuis sànq ba tey ñu ngi may envoyé ay message ñoom itam di rafetlu bu baax jotaay bi di leen jox dig daje ba gannaaw suba incha allah ah, waa wëllëre Umar Ndaw mooy euh, président sénégalais yi foofu yàqal baas yàqal xayr yàqal ma afia d'accord <laughs> waaw damay rafetlu émission bi rek ni que sujet bi ñu traité nii dafa am solo trop te su ma sañoon professeur mënoon nañ ci gën a xuus mais le temps ne nous le permet pas mm-hmm. parce que y a beaucoup de dégâts yoo xam ne que Paco moom internet bi bàyyiwuñ ko de ah bàyyiwuñu kenn non man yëngaluñ sax estomac la ñuy yëngal. man xoolal. Paco yàgg nañ la dal si internet bi. non mais dama laa benn affaire barke Seydina Mouhamed ku ma ko fayul fii ni ma ko fay àllaaxira. da ngay baale non baalu kenn. képp ku toog ci internet bi di ma sosal en longueur de journée mais frais frais gante wu parce que am na parce que man li yàlla santaane maa ngi ci. Hmm. maa ngi julli li nga nekk jet setteur moo taxoon nit ñi di wax. mais ku mu neex ak sa àdduna ku mu neex ak sa àdduna mais l'essentiel mooy li yàlla santaane maa ngi ci. Hmm. li ci li leneen li nit di ma juge. d'accord doo si nekkee nekk si jet set bi tamit. non ban ku nekk ci jet set. jet set temps de boy la. su maasee voilà loolu ngay wax ko mu leer. ni leen yow jet set mais mënoo mënoo mënoo bëgg juger nit ki te te yow mi koy juger. est-ce que yow li nga julli yow mi bëgg bi juger Paco. Ah. est-ce que yow fi Paco yegg yegg nga fa. te kenn warul juger kenn. mais voilà suñu borom rek mooy juger. mais dàqu ñu julli kenn. Hmm. dàqu ñu jàng alxuraan kenn. koo fekk naa fekk yi rek ñooy toog di juger nit ñi. bon eh, képp kuy wax naka su dul noonu Paco si internet bi Paco jégal na la baal. jégalu ma kenn. Ah. képp buy wax loolu dëgg ci man yàlla nañu yàlla àtt ci barke Seydina Muhammad ak weeru koor parce que nag neexul ñu téye sa der di ko yàq hmm. est-ce que comprendre nga fi may waxee nit day am mbokk man dérange wu ma en pako en tant que tel mënuñu ma teree lekk sama céebu ceebu jën mënuñu ma teree naan sama jus de bissap ñu ma teree dawal oto mënuñu ma teree tukki voilà non xoolal bajo bajo yi man waxuma ak ñoom li ma la mën a xamal mooy <laughs> ah li ma la mën a xamal. waaw oh, yaa ngi xuloo nag. non xulowuma yow da nga posé question. mais professeur yaa ko ubbi buntu bi nag. waaw mais moom tamit xuloo bi man ko doon wax pour mu jéggale. yow su ne Paco day jéggale lii day wax nii rek. waaw yor xol fayantoo. mais nag neexul de li muy wax nii neexul de. mais Khadija ñun ñëpp ko eh, fekkee dama la tooñ yow uh-huh. juge ma ma ñëw jégalu la mais luy ndey baggo dafa la waxu la nga tëg ci internet bi Asu si barke weeru koor nga jégal jégal ñëpp déggoo ma ne la su yàlla wàccoon sax jégalawu. Ah, kon ah, ah, boobu jàll nañ euh, Khadija. c'est que man pour terminer Paco comprendre naa ko un peu parce que nous on a vécu la même chose peut-être bu nekkee benn yoon sax mooy kaw Souleymane Faye ba mu fi ñëwee temps yooyu internet bi lu ñu yekkul amuñu. c'est-à-dire nga toog di lire commentaire ñu lay saaga ndey la saaga papa di saaga sa maamaati maam te kooku xamoo ko. xamul fi nga yendoo xamul fi nga fanaanoo xam nga loolu dafa métti ci xol donc je comprends un peu mais comme ni nga wax rek ku la tooñ après nga baal ko grandeur lay ah, doon donc pour yeggali Paco ma yeggali après nga continuer <laughs> je te remets le flambeau tout à l'heure maa ngi remercier képp ku di seetaan mais tamit euh, ci professeur li mu wax sànq ci commentaire yi mhm. parce que man j'ai jamais compris pourquoi site internet yi bu kilifa diine génne wala yenn kilifa yi ci réew mi génne ginnaaw moom moo waxal ñuy bàyyi donc clic yi ah. donc loolu da siy joué itam donc Sénégal am na lu bari loo xam ne peut-être euh, nit ñi comprendre ñu ko mais baax na plateau yi ci mel nii baax na ñu ko ciy leexal ñi nga xam ne ay ndaw lañ tey jëfandikoo réseaux sociaux yi xawar xalaat seen ëllëg ñu bàyyi ci xel bu baax donc kuy saaga moom moo waaye di rek quoi ñun euh, ñun moom kuñ saaga baal nañ la Paco mais xam nga ne laa mënu comprendre yow nit day toog def vidéo tey Paco Jackson di ko saaga ay mm-hmm. di ko yàq lu du n'importe tegu ko fenn lu dul bëgg na bës xëy na wala bëgg ñu ràññee ko wala bëgg daraja te fekk yàlla du joxe daraja ci ay saaga yow après xamul ndax yaayu Paco Jackson dafa génn àdduna wala génnul àdduna dee moo ko cherché kan moo nangu ñuy ñuy taxaw ñu di la saaga ndey wala ñu lay tuumaal yoo nga xam ne du dëgg mais Tounkara il faut arrêter xam nga sénégalais

une fois sunu borom ci jotaay bi am na solo trop jàngale yi bëri na donc euh, ñuy ñaan yàlla à chaque fois lu ñu fi wax rek mu nekk njëriñ. Mhm. donc di remercier ñi nga xam ñoo ngi ñu seetaan si biir réew mi ak si bitim réew. Mhm. Euh, donc tey moom dama bëggoon aussi ñu def mention spéciale à quelqu'un qui a accompagné le processus de démocratisation au Sénégal sam papa daf may wax ne ma maître Abdoulaye Wade moo tax ñu am isoloir Sénégal. Mhm. mu xeex ko donc kon kooku Mohamed c'était par rapport à Lamine Diack mu ne il faut pas brûler nos stars nos icônes mm mais tey jii président Abdoulaye Wade pour man il doit être une caution morale pour Sénégal ni ko ñeneen ñi nekkee ndax liggéey boo xam def na ko jël dundam yépp jox ko Sénégal donc di ko tey la am 92 ans di ñaan suñu borom mu yàgg defal ko wér donc euh, defal ko tawféex. waaye mer na tamit parce que dañu dem këram. di di di yóbbu ay convocation yàlla na fi yàgg fi yàgg te wér te am tawféex. à tout point de vue. Asou Dione foog ma rappeler benn je pense que euh, euh, Mame Less Camara. Hmm. su ma doon wax ni journaliste bi bind. na toog nekk à la place de. ci muy bind. wala mu teg fa papaam. Ah. wala mu teg fa yaayam. Hmm. bu boobaa lu muy bind. dina ko mm. xool kii mm-hmm. commenté tamit na def même chose bu boobaa Sénégal dina jëm kanam mais mais xam nga loolu xam nga loolu lu tax mu lu tax mu compliqué astu parce que ñun tolluwuñu niveau boobu mm. ñun niveau saaga lañ toll ah niveau xasante lañ toll niveau defante lu ñaaw parce que Mame Less Camara li muy wax noonu ko képp ku am gis-gis boobu rek c'est parce que yow da nga élevé wu mm. moralement mentalement te ñi nekk ci internet bi di saaga ñoom Paco di saaga ñoom. et aussi oisiveté euh, tam day indi loolu. ñàkk loo def ñàkk loo yaakaar naa ku toog sa bureau. ah du def asu dafay ñëwaat rek si ñàkk yar. Mhm. parce que nit ki même bu ñàkkee lu mu def am na koo xam ne yar nañ ko si doomu aadama doo ko saaga. c'est bu ma sa saaga. Mm. mu tagaa la ngay jeexle. waaw ñàkk yar boobu ci lay daaneele ndax bu ñu xool fàttalikoo fan yi passé bi bi euh, étudiant bi Fallou de décédé euh, gendarme bi nekkoon Patar internet bi yëpp kañ ko li mu def. lu gisee dama jàngat bi mas am dama ne lii du li mu jàng ci ci ci gendarmerie bi. Mm. ci yar bi la lii ci biir këram ci waajuram la ko jëlee moo ko may capacité. mu mën a gérer situation bi mel yi nga xam ne lépp a ngi ci yar bi man je mm. pense que bu ñuy gënee di xoolaat nu ñuy yaree suñu bopp. Ah, man ndaw laa par exemple nekkaguma peut-être fu may naan dinañ yar xale yi ndax man ci xale yi laa bokk. Mhm. mais je pense que bu ñu bu ñu góorgóorloo ci loolu xëy na suñu askan dina dina gën a neex daal jërëjëf. Euh, loolu moom daa am solo lool. Hmm. Bara first class comme d'habitude. aywa la classe. Euh, delloo njukkal euh, sunu sunu ñawkat tey waa Faramareen couture fële ca Pikine Icotaf Khadim Seck. moom moo ñaw lii nee na nag maareen fii la nekk ci wet ci wetu kaw la mu ne nee faramareen ñoom nee na waa maareen lañ moo tax di tudd noonu euh, sunu ay euh, technicien ñoom vraiment amuñu seen euh, amuñu seen fay delloo leen njukkal sunu ay téléspectateur ñoom nag vraiment lu mu guddi guddi euh, imaam da xool am na ñoo xam ni tey bu une du matin jotee fii trois heures du matin ma nga jot sa ñoom ay France ay Belgique ak ay Italie ak yooyu mais ñu ngi toog di ñu seetaan ñooñu euh, amuñu seen fay ñoom Néné Sané fële ca Paris ñoom euh, Ndeye Khady Camara nag fii ci Tivaouane sama wólëree sama waa kër yi foofu ñoom ñaxtu ñoom ñoom <laughs> ñaxtu ak suñu cousines yi foofu vraiment ñooñu ñëpp ñoom debbo ah, ñoom ñëpp ñu ngi nii di ñu di ñu seetaan dañ leen ñaar ñaanal suñu borom ba pare dig leen daje ëllëg bu soobee yàlla wasalaam.